Bonjour euh, Baba Karmbaïngaraf. Bonjour, Lekmo. Babacar Mbaïngaraf, euh, le président du mouvement citoyen Alliance Sauver le Sénégal, coordonnateur de la plateforme Naïler, également secrétaire général national du syndicat enseignant organisation des instituteurs du Sénégal. Déjà, le PASSEF a obtenu une majorité, comme on dit, confortable à l'Assemblée nationale du Sénégal en tant que membre euh, de la société civile. Quelles sont vos attentes par rapport à cette majorité est accordée à l'État du Sénégal Vous de féliciter le peuple sénégalais qui, encore une fois, a fait preuve de maturité. Mais également féliciter le parti PASTEF qui a remporté l'essentiel des sièges, bénéficiant ainsi de la majorité confortable pour mener à bien sa politique et mettre en œuvre sa vision. Mhm. Avant de terminer, je voudrais également encourager euh, l'opposition qui, malgré euh, le combat mené, n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle attendait. Mmh. Maintenant, je pense que c'est ça aussi le charme d'une démocratie. Une majorité qui gouverne et une minorité qui s'oppose. Mmh. Il faut que les gens acceptent que le Sénégal n'est pas une monarchie, mmh. le Sénégal est une démocratie qui reconnaît effectivement l'opposition. La preuve dans la Constitution, il y a des prérogatives qui sont euh, attribuées aux partis au pouvoir, mm-hmm. mais également qui reconnaît les droits de l'opposition, au point même de par le district de l'opposition, et mieux encore, district de l'opposition. Ceci dit, il nous à prier pour la réussite de nos gouvernants. Mmh. que depuis l'indépendance, le peuple sénégalais accorde chaque fois au nouveau régime

oui avec soixante quatorze virgule des sièges. oui avec des sièges. Mhm. donc le Sénégal n'a fait que euh, sacrifier. Mhm. à une tradition. maintenant. Mhm. aujourd'hui que le peuple a tout donné au régime qu'il a élu nous attendons justement des résultats. et à ce niveau nous pensons que les responsables sont très conscients. et qu'ils vont bientôt. sortir de l'euphorie mmh. pour se mettre au travail. D'accord. Surtout aujourd'hui que les urgences mmh. sont criantes et les défis à relever sont très énormes. Mhm. en tant que leader de PASSEF et qui a été la tête de liste du parti PASSEF Les Patriotes lors de ces euh, élections législatives, euh, avait promis aux Sénégalais l'installation de la haute cour de euh, justice une fois la majorité obtenue. Et aujourd'hui, que pensez-vous de ça, de l'établissement de la haute cour de justice pour poursuivre peut-être les ministres et les DG de l'ancien régime, du régime de Macky euh, Bartoka, la Cour pas sa raison d'être. Pourquoi Dès que vous êtes journaliste, il ne sert à rien de crier partout que lundi, Inch'Allah, il y aura un journal à midi. Parce que mais ça, ça entre dans le normal des choses. Hmm. L'installation de la Cour de justice va avec une assemblée, que ce soit majoritaire ou hmm. minoritaire. Mm -hmm. C'est comme si vous dites que le jour de la Tabaski, il y aura un mouton mais c'est tellement naturel c'est tellement normal je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi on est bâti toute une campagne autour de cela hmm. maintenant aujourd'hui il n'y a plus de temps à perdre il faut insister ce cours de a de, l'argent du contribuable sénégalais qui a été dilapidé mais que les gens euh, aillent la traque des contrevenants maintenant essayer de récupérer cet argent pour l'injecter dans l'économie sénégalaise et faire face aux difficultés nombreuses que les Sénégalais font mmh. par rapport à la, euh, euh, la transparence, que... AZER, entre autres, qu'attendez-vous plutôt par rapport à ces dossiers À ce niveau, nous attendons de cette nouvelle législature la création, pourquoi pas, d'une commission bonne gouvernance, pour la bonne et simple raison que notre pays commencera bientôt à exploiter des ressources, telles que le le gaz, ces ressources bien exploitées permettront au Sénégal de pouvoir disposer de suffisamment de biens euh, pour, euh, euh comment encore, pour empêcher à nos surtout d'emprunter la mer pour aller euh, euh, rechercher des richesses ailleurs. Maintenant, cette commission bonne gouvernance, encore une fois, oui. Euh, permettra de faire de d'une gestion rigoureuse des comptes la commande mhm. sur toutes nos actions mmh. tantôt de vous parler également de la euh, criminalisation de l'homosexualité qui est un peu aux mhm. populations mhm. sénégalaises par rapport euh, à, l'abrogation de la loi d'amnistie, c'est toujours euh, une promesse du leader de passé, Ousmane Sonko. Que pensez-vous de ça aussi Mais ça, Aurélie, nous pensons qu'en grosso modo, ce à quoi nous nous, nous attendons par rapport à cette nouvelle législature, c'est surtout donner les engagements euh, qu'elle avait pris. Mm pas que la criminalisation de, de, mm-hmm. était un engagement, mm-hmm. même si on ne pas beaucoup entendu sur la, euh, à l'occasion de la campagne électorale. Excusez-moi, je suis actuellement sous parce que j'ai la grippe. Ce qui fait quelquefois euh, je suis obligé oui. d'entrecouper un petit peu mm -hmm. donc les phrases. Donc je disais que oui. il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris dans la campagne. Mm il reste maintenant la mise en œuvre. Attendons l'installation de l'Assemblée pour faire la bonne appréciation. Mais de toute façon, mhm. les Sénégalais attendent que tous les engagements qui ont été pris soient honorés. Ces engagements tournent principalement autour de la bonne gouvernance, de la réduction des comptes, mhm. de la criminalisation de la homosexualité, oui. l'abrogation de la mhm. et autres. Donc, vous voulez dire, Babacar Mbayengaraf, qu'actuellement, qu rien plus n'empêche euh, au régime de dérouler son plan Sénégal On avait donné euh, au passé un pistolet sans balles. Aujourd'hui, avec donné les balles. Maintenant, il ne reste qu'à tirer, atteindre la cible. Donc, ce qu'on attend, c'est que la programme, là, euh, euh, euh, excusez-moi, le programme, oui. projet, soit déroulé. Je vous ai tantôt mm-hmm. que le peuple sénégalais s'est toujours comporté comme ça. L'électeur, l'homme sénégalais, le 6, mm à chaque fois qu'il qu donne l'exécutif, il te donne l'Assemblée pour te permettre de mettre en œuvre mm-hmm. ta politique. De dérouler. on parle de projet. Mm-hmm. On va attendre le déroulement du projet. Mais je voudrais également profiter votre occasion pour poser un autre débat. c'est quoi ndekk boobu si vous faites une analyse euh, du comportement de l'électeur de l'homme sénégalais mm-hmm. je le dis et je répète encore à chaque élection le Sénégalais donne donne nouveau régime mm-hmm. l'Assemblée nationale mm-hmm. mais à partir de ce moment est-ce qu'il ne serait pas mieux de coupler l'élection présidentielle aux élections législatives, ce qui va nous permettre vous faites une de suggestion de gagner en économie. oui a également et de se mettre au travail. Ndeye Comba il est inacceptable. dans un pays aussi pauvre que le nôtre que dans un quinquennat. qu'il y ait trois élections. Mm -hmm. et vous élections coûtent cher mhm. mais ça se fait ressentir même dans le travail. Mhm. au Sénégal. presque trois mois ou quatre mois avant l'élection mhm. les gens sont en campagne mhm. après il y a la campagne mhm. ce qui fait que les contribuables en souffrent donc je disais tantôt qu'il est important et urgent à notre avis nous Alliance Sauvetage Sénégal que l'on pose le débat sur le couplage des élections présidentielles et législatives D'accord, c'est par rapport euh, à l'actualité. On demande la déclaration de patrimoine d'Ousmane Sonko ou bien, comment dirais-je, euh, la publication euh, de la déclaration de patrimoine d'Ousmane Sonko. Mais c'est une revendication légitime des, du peuple sénégalais. Vous savez, il faut prêcher par l'exemple. Très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, aucun Sénégalais ne pouvait imaginer qu'après huit mois encore, on allait continuer à attendre la publication de la déclaration de, de patrimoine de monsieur le Premier ministre. Mm-hmm. Et de toutes les personnes soumises à cet exercice. Je pense que le président de la a donné un bel exemple. Il devrait être suivi normalement par le Premier ministre et ensuite par l'ensemble de son gouvernement et des DG à qui il a fait confiance. Mm-hmm. nous pensons que peut-être qu'ils euh, étaient occupés par autre chose, mais aujourd'hui il ne reste que le travail, que l'action politique est terminée, à publier cette déclaration de patrimoine-là. D'accord. Et que pensez-vous de la suggestion d'Alientine euh, d'Africa Jom Center qui suggère à Ousmane Sonko euh, de siéger à, la présidence de l'Assemblée nationale pour éviter la dualité au sommet de l'État avec euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et dans la mesure on nous a toujours dit que Bassirou euh, Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko oui je voudrais éviter les Sénégalais à laisser Ousmane Sonko le libre choix donc de décider de la station qu'il va occuper là il se sentira mieux à l'aise pour servir sa nation qui lui a fait confiance D'accord. Merci beaucoup Babacar Mbaye euh, d'avoir répondu à nos questions. Babacar. Et je rappelle que Babacar Mbaïngara, vous êtes le président du mouvement citoyen Alliance Sauver le Sénégal, coordonnateur également de la plateforme Nailer, c'est ça? Voilà.